cité Cheikh Anta Diop mbokk yi ak ña fa daa étudiants yi jamono yooyee payer xam ngeen ni ab diir a ngi lay jaaratuñu ci ñoom ngir pay gi ndax dañoo yóbbu bourse étudiants yi ci banque loolee nag jural leen ak lorange fukki weer a ngi faykuunu ña nga bëgg nag ñu dugal leen ci fonction publique bi ne ay liggéeykatu nguur gi démb ña nga woon dajaloo ca direction des bourses Maimouna Ndiaye Adama Gueye bourse étudiants yi ñu jaarale ci banque yi nag bokk na ci li indi ay gàllankoor ci liggéeykatu université yi ñoom nag toll ci ñaar fukk ak juróom-ñett lenn rek la ñuy sàkku fi mu toll mooy ñu jox leen seen fukki weeru payoor. dañuy waxoon ñun dañuy recruter dans la fonction publique loolu la ñu waxoon loo moo tax ñun ñun gën accepter ànd ak ah, ànd ak banque bi jàppale ko pour pour pour liggéeyam sotti. xaalis bi fu mu toll nii ministre bi joxee na accord am ministre bi joxee na accord am ba décision bi génn mais boobu léegi benn papier bu ñuy uti pour au moins ñu. xam kan moo ñu war a fay jusqu'à présent ce problème n'est pas réglé vraiment loolu def ñu inquiété. juróom-ñaari at ci ren ñuy liggéey ak université bi tey jii ñu ngi sàkku ci nguur gi mu dëgëral seen taxawaay ci wàllu liggéey te teg ko ci yoon. juróom-ñett la woon ñoom ñooy ñoo si gën a yàgg te ñoo bu ñu recruté sax yàggul te loolu dañu waxoon dañu waxoon dañ koy def si ñaari phase mais boobu léegi nag gis nañu ça traîne ça traîne ça traîne mënuñu xamul te ñu ñoo ñoo bokk même liggéey bu ñuy def. gannaaw loolu. sàkku nañu tamit ci ñaari candidat yiy jongante ngir jël bopp réew mi ñu taxaw ngir saafara seeni jafe-jafe. lu ñu ñaan ñun mooy ñaari candidat yi à la présidence ñu ngi leen di ñaan ñu ñëw ñu waxtaan ak ñun ci suñu sor parce nu ñu servir Sénégal pendant sept ans ci liggéey boo xam ne bu métti fay nañu étudiants yi fii ñoom gis nañ liggéey bi nu mu méttee ah ba pare boobu léegi amul koo xam ne mun na ñëw taxaw wax ñu ñu ñaan candidat yi ñu woo ñu. ñu toog sur table ñu discuter sérieusement sur la question. père yi di ñaan seen njiit di Amadou Tidiane Ba saafara ci ni mu gën a gaawee seen i tawata. looloo waral teewoon nañ ci kër gi toppatoo wàllu bourse yi ngir amal ab waxtaan ak njiit la ba déggoo mën a am.